Sam TV gaynde de l'actualité ñi ngi am mbégte kontaan te matin di nekk fi nga xamante ni moom mooy euh, euh, comme ni ma leen ko waxee rek te ngi dugg ci kër waa PASTEF leader boobu di Ousmane Sonko moom leen dalal ndawam mi nga xamante ni moom mooy Pape Ousseynou euh, Pouye Pape Ousseynou Pouye salaamaaleykum. maaleykum salaam Elmat maa ngi lay nuyu di la ziar. Mhm. di nuyu waa PASTEF yëpp. di nuyu aussi tamit toute la population de Grand Mbao. Mhm. Euh, de Kër Mbaye Fall de Zac Mbao de toute la commune de Mbao de département de Pikine. Euh, ci d'abord euh, émission bi maa ngi ci maa ngi koy jox waa Pastef yëpp jël leen yéen ak moom Pape Ousseynou Diagne moom lañ Pape moom dalal fi nga xamante ni Pape Ousseynou Pouy yow boo ñu doon représenté sa bopp ci ci Pastef mm-hmm. responsabilité fi nga fi occupé. Euh, bon su may présenté sama bopp si Pastef damay euh, njëkk fi ma dëkk. may euh, wax nga foofu noonu responsable de cellule la cellule bi nekk banqaas bi nga xamante ne ni moo gën a ndaw si organisation Pastef. ma nekk responsable de cellule. nekk aussi tamit un membre de la section communale. bi nekk bànqaas bi nga xamante ni moom moo topp si si cellule. Euh, bu ma jógee si loolu tamit ma nekk na membre du mouvement des cadres euh, Pastef. très bien euh, tey dama bëggoon ñëw nga defal ñu benn benn historique ci Ousmane Sonko. soo doon présenté Sénégal yi yi nga xamante ni tey si jamono deux bi mooy ci situation pandémie bi ci sortam kan Ousmane Sonko. Euh, Ousmane Sonko boo ma laajee ma présenté dama si sawartoo euh, parce que dañuy faral di wax que un homme politique c'est à la fois un discours et un parcours. Mm. tey jii boo gisee ñu am yenn mbetteel yu bëri si euh, wàllum politique dafay fekk que ni ñun du ñu xool le parcours de nos hommes politiques Ousmane Sonko bi mu duggee si politique c'était en 2014 euh, day correspond tamit euh, date bi nga xamante ne ni si lañ sos Pastef mhm. te Pastef li ko tax a jóg mooy défendre intérêt sénégalais euh, ñu am benn engagement bu xamante ne nii dafa nekk sans faille mhm. te Ousmane Sonko nekk à la tête de de ce de parti politique Ousmane Sonko est un ancien inspecteur il nga xamante 15 def na ans au niveau des impôts et domaines te si 15 ans yi def il fait partie des rares personnes sinon euh, bon je vais dire même des rares personnes qui xamantene fait dugg nañ fa ba génn fa te amuñu amul dara loo xamantene dañ koy nëbb te bi ngeen fàttalikoo sax si campagne yu élection 2019 yi amul benn candidat boo xamante ne ni ñeme woon na taxaw wax wax après 15 ans de carrière au niveau des impôts et domaines nit ku ñëw

très pragmatique c' est le pragmatisme pragmatisme boobu nag jëmale ko si développement wu dëkk bi ñun dañu euh, bokk si ñi nga xamante ne dañu gëm ne du libéralisme du socialisme du communisme mooy tax ñuy développé suñu dëkk. Mm. liy tax ñu développé suñu dëkk mooy patriotisme donc suñu idéologie mu ngi tënk aussi li nga xamante ne ni tey dafay soxeekoo si biir Sénégal li nga xamante ne suñuy ressources la ñun ñoo ko moom mu des biir Sénégal. donc euh, même boo xoolee sax suñu euh, slogan bi nooy utiliser ci élection yi mooy dafa jot li nga xamante ni ñëpp dañ ko bokk ñëpp jot si. Mm. donc euh, idéologie bi dafa tënku si valeur yi nga xamante ne ni ñun moom la ñu am au niveau du Sénégal valeur yi nga xamante ni moom la ñu bokk ñu sàmm ko ñu wëy si valeur yooyu noonu de telle sorte que lépp li nga xamante ne ni dafa nekk des intérêts économiques des intérêts sociaux et des intérêts sociaux et tout mu doon lu xamante ne day des fii du Sénégal. Eh, eh, Ousseynou lan ngay wax euh, euh, loolu lu tax APR gën Pastef lu tax lu lu tax APR gën Pastef. ci jaar-jaar. ci daa yooyu yaa wax 2014 le mettre en place Pastef. Mm-hmm. Macky Sall APR créé 2000 parti bi APR 2008 2012 mu nekk président de la République. Mhm. kon mën nañ jàpp ne APR moo gën Pastef ci duration historique ñu ñëw lu tax loolu. Euh, boo ne moo gën day nekk un peu jugement de valeur. te buñ duggee si jugement de valeur am naa yaakaar ni que ne euh, comme dit tubaab di wax. Mhm. APR n'arrive même pas à la chérie de Pastef. tey jii dafa am ay valeurs communes yu xamante ne nii bu commencé am Pastef moo tax mu am aujourd'hui nous faisons un débat qui est aussi élevé que que le débat actuel c'est parce qu'au niveau de Pasteur, il y a des gens qui ont osé relever le débat mm. euh, aujourd'hui il n'y a aucun parti politique qui a xamante ils sont partis aux élections en faisant un financement fort Nous, on est un parti boo un financement bi si militants yi lay si militants ça vient des militants. Mm. donc éthique non, parce que Pasteur, moi, les patriotes. du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité mm-hmm. donc éthique dafa nekk loo xamante ni dafa am solo te bu ngeen fàttalikoo y'a une conférence bu xamante ne ni Kéba Mbaye jotoon na ko def en 2005 euh, au niveau de l'université bi wax sur l'éthique ne l'éthique est au début et à la fin de toute chose te tey jii ñun loolu la ñuy prôné donc tey bu fekkee dafa am euh, une comparaison bu nga xamante ni dañ koy def diggante Pastef ak APR dañuy gën a gis ne éthique boobu ñuy wax si Pastef la gën a nekk. Hmm. et tur bi sax da koy indiqué parce que Pastef mooy ko xamante nii ni dafa dogu si benn mbir. dafa dogu si benn mbir. dafa dogu si benn mbir nga boole ko moo ñuy. moo ñuy permettre ñu yeggali yéen bi ñu am gis ni Ousmane Sonko saa su nekk bu sorti rek day dóor ci président Macky Sall lan mooy problème mu Macky Sall. Ousmane Sonko amul benn problème ak Macky Sall. amuñu benn problème ils ont. ndax dafa ndax dafa bëgg buzz wala day jàpp jàpp ne maanaam bu tuddee. lii mu dem ci ndawam mi dem ci ministre dem ci député yi mais Macky rek lay dóor lu bëgg naa xam lan moo waral loolu. dañuy faral di wax ne hmm. euh, peut-être sax day xaw a nekk anticipation ci dañuy wax ne hmm. euh, boo jëlee gétt gétt gétt boo xamante ne nii euh, gaynde moo ko jiite. gétt hmm. gétt xar wala gétt boo xam gaynde moo ko jiite moom mën gétt boo xamante ne nii ay gaynde ñoo fa nekk mais xar jiite lañ.

Lui keneen di def lii tubaab di def lii français di def lii euh, waa Dubaï di def euh, lii waa États-Unis di def ñun Sénégal mën nañ ko def tey jii est-ce que mën mën ngeen gis un pays qui est aussi riche que le Sénégal demal Europe doo gis pays boo xamante ne moo gën a riche Sénégal mënoo ko gis nga dem États-Unis kazaalika tey jii ñun on a l'or on a le zircon on a le pétrole on a le gaz on a les noix de cajou on a les mangue et tout tey jii qu'est-ce qui fait que le Sénégal aujourd'hui fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde c'est parce qu'on a un mauvais leader, en l'occurrence Macky Sall, mm. qui est le président de la République du Sénégal. Mm. L'OIT, mm. l'organisation internationale du travail au niveau du Sénégal. le taux de chômage est à 48 Madame le troisième pays avec le pire taux de chômage. L'OIT, il dafa nekk ay message de xamante euh, pour juste il n'y a rien de personne entre Macky Sall Ousmane Sonko mais tey a de depuis euh, dans 8 ans léegi et tu te retrouves avec 48 de taux de chômage ça veut dire que non seulement liggéeyoo mais yaa ngi yàq. Mm-hmm. ndax bi nga fi ñëw fekkoo fi 48 de taux de chômage te tey bokk na si li nga xamante ne ni moo tax ñu jëlee fi Ablaye Wade mooy dëkk bu métti mooy ñàkk liggéey bi. et eh, ma wax la lu tax euh, APR mënul gën euh, Pastef lii nit ñi di fàtte c'est que ne tey jii boo un leader bu xamante ne dafa mel ni Macky Sall Macky Sall il est au pouvoir depuis 2000 ñëwul au pouvoir en 2012 depuis 2000 il est là mu nekk premier ministre pendant 4 ans nekk président de l'Assemblée nationale bu leen fàtte que ne jamono bi ñuy wax ay immigration clandestine euh, ak yooyu yëpp mu gouvernement et ça a commencé en 2004 2005 aujourd'hui on est en 2020 mm-hmm. ñu gisaat fléau boobu ñëwaat et qui est à la tête de ce pays c'est Macky Donc, Taïdi, ce n'est pas parce qu'on a un problème personnel avec Macky mais c'est parce qu'aujourd'hui, la politique que Macky Sall est en train de mener, il faut dire le Sénégal si ben bout. Et je me dis que madame am sam benn kilifa le fait me waxtana mu ñun magi en tout cas jaratul ñu rek la suñu réwé mané ka am ah, tax mu ne ma euh, jafé jafé yi tar na tar bo xamantene ni 3h du matin yéw nañ ñu ngi xalat nan lañuy jappalé suñu doom ba ñu génn situation bi ñu génn situation donc bu ñu nekkee ci contexte bu mel noonu mm. tay bi euh, ku mel Ousmane Sonko mu nekk un leader te leader mooy lan mooy que tey ji boo ñëwee ne ah ndaw yi jóg leen ngeen dem bay ndaw yi jóg dem bay te année bi on a eu une une une une une moisson record parce que dem nañ bay lu toll ni si quatre hectares ay gombo fii nii ay concombre et cetera ñebe fii et cetera tey jii un leader mooy mën a def lool. Mm-hmm, mm-hmm. tey dafa jóg ne dem nañ ngeen def don de sang au moment où les banques de sang étaient vides. Mm-hmm. dañ waa Pastef dañoo jóg dogu si appel Ousmane Sonko boobu noonu ñu dem maye deret ba tey jii à un moment donné sax on s'est retrouvé avec une surprise donc un leader. comme les Anglais le disent mooy someone who knows the way shows the way and goes the way. su ma koy tekk si wolof mooy ku xamante ne dafa xam yoon wane yoon bi te dox ànd ak si yoon boobu noonu te tey jii Macky Sall dafa loolu donc du wut bës du wut dara mais lépp nga xamante Ousmane Sonko mu ngi koy def c'est pour que sénégalais yi nga xamante ne nii ngi dund ay jafe-jafe yu tar ñu mën a am au moins loo xamante ne day seral seen xol ñu mën a gis ressources yi nga xamante ne ni si dëkk bi lay sooxee ko mu am benn jeexital seen dund bi. jërëjëf mbokk yi fii mooy Sam TV Gaïndé de l'actualité ñii recevoir ki nga xamante nii mooy Pape Ousseynou Pouy nekk responsable nag politique la Pastef na nekk si jeune cadre yooyu nga gis na mbokk yi euh, euh, service commercial baa ngi ni daw euh, émission bi sax sam ngeen ne sam ngeen ko am en intégralité Pouy dañ gis ne Macky Sall comme ni nga ko waxee Ousmane ko da koy desandi ay mool mm-hmm. mais jàpp nañ ne Ousmane Macky Sall créé na parti 2008 APR muy libéralisme ñu am idéologie mu dem ba 2012 mu nekk président de la République Macky Sall ci jaar-jaaram mosul perte élection mm-hmm. depuis 2008 euh, ba 2012 deux ans 2012 deux ans la mm-hmm. Ousmane Sonko créé parti am 2014 ba 2020 six ans la mosul gagné élection. Mm-hmm. Euh, lan moo waral xanaa loolu moo taxoon euh, mu jaarale moom Ousmane Sonko bëggoon dem fekk ji Macky Sall jaarale ko si Mansour Faye bi génn audio bi. bon damay sawar tontu laaj bi ma laaj. Je rencontre euh, bi nga Ousmane Sonko déjà c'était en 2013. Hmm. donc avant l'avènement de Pastef. Mais le le contexte réel moi mooy un moment où Mansour euh, je sais pas si c'était le statut de ministre qui parlait ou bien le statut de gouvernement qui parlait. Hmm. il disait qu'il hmm. il n'allait pas répondre à l'OFNAC. alors que tey boo duggee ci article de l'OFNAC dalay wax ne non seulement OFNAC am na possibilité saytu li nga xamante ne ni action publique la mais am na possibilité saytu action privée mm-hmm. donc tey jii boo fekkee na nga nekk ministre nga ñëw taxaw devant toute la population nga def une gestion chaotique mm-hmm. de ce qu'on appelle la force Covid. mais mais ta nga ne gestion chaotique la def. Euh, ci c'est une gestion parce que tey jii mille milliards mille milliards yoo xamante ni bi ñu koy wax danañ koy séddale déjà. dama sur le plan logistique c'est un <laughs> désastre parce que bon, c'est euh, là, bi ñu ngi ko ñu au mois d'avril daanaka nit ñi ñu ngi commencé recevoir seen aide seen mois de juin juillet ñi naan seen ceeb bi baaxul à naan de gauche à droite etc., et j'en passe L'état de la gestion chaotique moi, déjà il y a un problème de timing lan moo taxoon ñuy séddale le bi c'est parce qu'il y avait un confinement dañ defoon confinement partiel à partir de vingt heures nit ñi ñu ne dox nañ seen kër ñu bëri perte seen liggéey activité yi doxatu. mais mais mais mais Pouy euh, dugg bëgg ndeysaan ñu waxtaan Sénégal yëpp ñuy seetaan ak diaspora bi Pouy yéen lan moo tax saa su nekk une euh, wax ne Mansour Faye ne wuy ji OFNAC nee bañ wuy ji OFNAC mu génn def benn ci benn organe de presse ne Ousmane Sonko bëgguma wax ci moom mais mos na ma sàkku audience la wax. Ousmane mm-hmm. Sonko lolu amul mais lolu ayul. wa mais mais juste pour yeggal li ma doon wax sànq nii mooy que ne ah. tey quand tu distribues une aide aide boo xamante nit ñi ñu ko soxlo avril mai. yow yow aide bi mu ngi tàmbalee juin jëm juillet ba ba ba ba ba août. mais c'est normal parce que ay camions lañ koy def. c'est ñu ko def ay camions quatorze régions ay 1552 communes. mais mais lolu c'était une campagne déguisée te lolu moom. campagne xam nga li gën a ñaaw mooy la mooy tey fi nga xamante dañu nekk crise sanitaire ñu war a éviter les contacts yow tu te permets de d'inclure des milliers de personnes sur une distribution sans pour autant nga xool yan condition la lekk bi di demee si kër nit ñi loolu je pense que ça a été le plus grand risque les gens mais yéen ban euh, voilà mais puis puis puis alors que. oui mais da ngeen gis ne souvent euh, ngeen ne campagne la mais da nga gis benn benn askan wala benn commune jógul di ñaxtu ne ñoom jotuñ ci mbir ndimbal yi. donc yéen ci yenn base ngeen ngeen. xam nga lu tax campagne euh, ils ont une base de données. ni ñuy def ba distribuer les ko def pour distribuer ndimbal bi. mais ndimbal kenn na ndimbal waaw. on n'a pas besoin de camion pour jox ndimbal je donne un exemple. pour dire que c'est une gestion chaotique et de la politique nan ngay mën a jël ceeb di ko dem séddale au niveau de la vallée te dañuy mais mais Covid 19 bi dafa bett ñëpp. mais même nous mu la bett Ousmane Sonko c'est leader. un leader hmm. un leader. gis nga leader du tiit. un leader il est censé rassurer les gens nit ñi déglu la seen xel dal mais si tu es la première personne à paniquer jusqu'à ngay jël ay décision yu xamante ni nii méngoowul sax ak li nga xamante ni nii moom moo la askan bi soxla bu boba yow surtout leader. Euh, amatul amatul amatul njëriñ amatul njëriñ euh, gisoo na yow euh, mbokk yi Pouy la ñuy recevoir fi nga xamante ni mooy Sam TV Gaïndé l'actualité Pouy xanaa ma ndax mën ngeen mag Macky Sall ci pandémie bi nu mu ko géré gestion bi nu mu géré pandémie bi woo si leader ñëpp ñëpp ñëw ah dañ ñëw ci léegi ci Idrissa Seck mu dem Seck fekk jëm Ousmane dem na Palais Macky moo ko fa dugal looy wax si loolu. Ousmane Sonko juste pour dire que li tax mu dem Palais. Euh, c'était pour dolli xel président de la république. pour dolli xel président de la république. parce que dolli xel moi, mooy lan que toll na li ma un leader aujourd'hui bu que tu es au pouvoir et que tu n'es pas en mesure de donner des solutions c'est normal nga xool ñi nga xamante ne war nañ la mën a euh, yokk xel ñu ñëw ñu jàppale la Ousmane Sonko loolu la def boo xoolee. dama dem yokk dolli ko xel quoi. ñu fa invité yëpp di tax ñu yok aide bi. lan moo tax ñu yok aide c'était une aide. initialement c'était cinquante milliards mu ñëw na cinquante milliards on peut rien faire avec le lendemain ñu yokk aide bi mu ne na ngeen fexe ba xaalis bi ngeen xamante ni moom ngeen jël pour askan bi bu si jënd ay oto bu si jënd leneen te ngeen ko génn pour dimbali askan bi dimbali leen si askan bi mais mais puy du pas nangu foofu parce dafa dem joko joko xel kan moo usman Ousmane Sonko moo dem seeti wala Macky Sall moo ko voilà léegi Macky moo ko sako, quand tu es dans le besoin c'est normal nga wundi. Macky moo ko woo wala fekk naa di. effectivement voilà mën nga loolu mën nga ko nangul naa. mais effectivement c'est que je dis. oui Macky Sall bu wootee tey jii ne dafa bëgg ñu dooleel ko xel si nu muy gérer pandémie bi on l'a fait tey jii est-ce que tu peux me donner un un un acteur politique pour dem fofu noonu ñeu joxe des suggestions comme nous on l'a fait. Hmm. parce que Moustapha Cissé Lo sax lu muy bañ bañ bañ Ousmane Sonko yëpp mais il a eu raison bi mu bi mu waxee ba pare dafa ñëw ne Ousmane Sonko a hmm. parce que il faut que ñu saytu xaalis bi nga xamante ni moom la ñu génn fan lañ koy dugal. donc tay jii bu ñu demee ba des. mais loolu loolu c'est normal. nañ euh, seetu xaalis bi. loolu du du du scandale. c'est c'est scandale quoi. mais foofu laay ñëw c'est scandale aux yeux de Mansour Faye. parce que tey boo ñëwee. Mansour Faye dafa def euh, dafa. mais mais il a pas il a pas il a pas il a dit qu'il n'allait pas se justifier s'il l'on n'a l'appel je vais pas répondre après il a fallu que Ousmane Sonko d'où l'importance tey jii d'avoir euh, des opposants mm. Ousmane Sonko mu génnee wax après c'est defar conférence de presse ne moom yaakaarul na of nag mën na koo woo mais su ko woowee dina dem donc tey na ngay gis ne ñun impact bi ñu am au niveau euh, du du Sénégal au niveau euh, du du gouvernement on a en de contrôler l'action du gouvernement en faisant quoi en tout simplement disant la vérité donc euh, tey jii ñun on devrait nous féliciter parce que li ñuy def yëpp c'est dafa jëm si xamal askan wi li nga xamante ne ni moom la suñu njiit war a def bés bu ñu ko defee xayrul suñ ko defulee tamit ñu tegaat nañ ci yoon. donc loolu mooy opposition loolu Ousmane Sonko di wax ne. mais souvent dañ gis ci ci révélation yi Ousmane Sonko wala leader yi mel ni yéen da ngeen di def ay révélation wax ay milliards ay scandale mais doolu indi ay preuves. da dama lay wax euh, bi Pasteur dalee def ay révélation ba léegi nii hmm. euh, amul li ñuy la chanson sax commune mooy lan mooy Ousmane Sonko waxal na ko. et peut-être mën naa rappeler brièvement peut-être y a l'histoire des 94 milliards qui étaient là ba ñëpp foogoon ne nañ que ne gars yi nañ fa jaaree faagaagal Ousmane Sonko ne amul preuve assemblée jóg def une commission d'enquête parlementaire bi mu ko defee dafa gën a dëggal li nga xamante ne ni moom la Ousmane Sonko wax. ah bon. après est-ce que dégg nga si suite. Hmm. dégg nga si suite. oui est-ce que am na suite. am na suite suite waay. du am suite. Hmm.

Euh, des, des, des, des, paiements de 46 milliards et de, 44, et de 44 milliards. Sur quelle base Il n'y a aucune base. Vous savez, 44 milliards. Il n'y a aucune base légale pour vous faire. Mais dans un pays comme le Sénégal, tu as un opposant comme Ousmane Sonko.

D'accord, que assemblée nationale accepte na li Ousmane Sonko et. non non non non oui, d'accord, il faut que que assemblée nationale waxee ne ni d'accord, mais nous, nous Ousmane Sonko wax je n'ai jamais dit avons une majorité bokk ci parti pouvoir. xam majorité bi bu paree nga ne. je vais je vais te dire xam nga xam assemblée nationale la spécificité de notre assemblée nationale mooy que ne mm. ñu bëri seen xam-xam dafa limité si ñuy nekk surtout au niveau de la mouvance présidentielle. Je ne sais xam-xam limité du ma un amuñu xam-xam mais peut-être dañu partisan te tey jii partisan du wax dëgg li muy wax euh, peut-être def le maximum pour diaboliser nit pour diaboliser nit mais mais mais on a sorti tous les documents qui sont relatifs à ce problème. C'est un truc qui était très documenté, très clair. Les preuves ont été sorties par Ousmane Sonko tey bi doyen des juges convoqué Ousmane Sonko il est parti répondre il a fait il a il a il a donné il a il a il a réaffirmé les affirmations yi nga xamante ne ni moom la jotoon a wax assemblée nationale def son enquête parlementaire la def une enquête parlementaire. son code, jii dañuy tëj Sonko dañuy restituer Sonko mais il y a pas de suite tey si ñoom ils étaient en bonne posture. Mm. ils n'allaient pas juste ni comme ça def def ben, ben, ben, silence et ça c'est un silence coupable te tey bu dans un pays qui est normal comment on peut concevoir qu'on puisse euh, permettre à des gens de de de de de faire des titres qui sont à hauteur de 94 C'est milliards te booba léegi dire, amul kenn ku ci wax. amul kenn ku ci wax euh, di ñëw ci euh, euh, quelques minutes pour la fin 10 minutes puis Macky Sall dissoudre son gouvernement mu créé nouveau gouvernement bu bees. Mm-hmm. Idrissa Seck jiitu na fi Ousmane Sonko kay Ousmane di dem di fekki. Macky Sall 2024 na fekki Macky Sall 2024 dana ko fekk ñu def passation hein? ah waaw ci te et puis Idriss Seck dafa nekkoon si coalition Idy 2019 jité ko mm. Ousmane Sonko ñu travaillé voilà bon rendez-vous bi ñu joxoon ci foogoon 2021 wala 22 2024 2024 Ousmane Sonko inshallah allah nga gisee na nga gisee euh, li fekk Idriss Seck te fekki Macky Sall loolu mu ngeen d'accord ne Macky Sall yéen daanaka la jàmbaar la Euh, li acte bi daal si kaw Idrissa Seck rek mooy daal si Macky Sall moo si daal parce que gouvernement kenn ko joxe ay deal beaucoup de personnes ont parlé de deal entre Wade Macky Sall entre Wade Idrissa Seck Ousmane Sonko génn na fi yaa trois mois quatre mois de cela mu wax ne on a une opposition dileuse qui est versatile ñu bëri daal si kawam dafa ko wax mais aujourd'hui li lay wax léegi nii rek saa bu Ousmane Sonko defee révélation nit ñi di tëb di daal mais au bout du compte on se rend compte que Ousmane Sonko li mu doon wax dëgg la tey jii comment pouvez-vous concevoir que dans un pays. est-ce que Ousmane qui est Ousmane Sonko am na une déclaration bu def ci Idy est-ce que ça, am na sañ-sañ wax ci Idy wax yoo xamante ni pour ngañ ko wala est-ce que am na droit pour opposer idée sec Ousmane Sonko. on n'est pas là pour s'opposer à Idrissa Seck. Idrissa Seck c'est pas notre notre notre notre vis-à-vis. oui mais vis-à-vis c'est le le régime en place. mais mais moom mais ils travaillent ensemble mais même s'ils travaillent ensemble peut-être on va le laisser avec euh, keneen mu wax ak Seck mais aujourd'hui euh, l'alter ego de Ousmane Sonko c'est le président Macky Sall. tey bu amee lu muy wax bu amee lu muy ça va ça va ça va être cette politique chaotique chaotique de Macky Sall parce que dafa am loo xamante dafa metti si xol. Mm. parce que euh, Sénégal dëkk bi fi mu toll nii euh, nit ñi perte seen emploi jeunesse bi amuñu liggéey avec 48 de taux de chômage des étudiants qui sont pas orientés hein, des des des des malades qui n'ont pas la possibilité de se soigner yow nga yëkkati 30 millions de ko jox à une personne juste comme ça te pourtant 30 millions yooyu noonu Ça xaalis la. Mm. sama xaalis la xaalisu keneen donc dëkk bi fi mu toll nii dañu war a dépasser ay stade seddoo. Il n'y a rien qui puisse justifier un rapprochement entre Idrissa Seck et Macky Sall. Idrissa Seck, il est resté muet pendant plus de, plus de, plus de, euh, ça a bientôt faire deux ans. de lui il était en discussion avec Macky Sall depuis plus de 15 mois. non Pastef dafa nekkoon dafa une ci coalition il non wala une foofu. non non Pastef masul nekk ci coalition Idy. lan moo waraloon ñoom ñaar bi ñu def en fait presse bi di ci ngaañ yenn organe de presse dañuy wéy dañuy faral parti au pouvoir bi dugg fi génne fi Idy dafa togon Ousmane Sonko tok loolu c'était juste après les élections. waaw bi Macky Sall foxaté euh, au vu Macky Sall fokkati nguur je peux dire ainsi parce que ce sont des élections qui sont très mal organisées ça a ni donc nga que n'a jamais perdu une élection mais les élections les plus mauvaises depuis 1986 ça a été organisé par le président Macky Sall. 2019 en 2017. avant 2019 2019 2017 c'était les premières élections législatives mm-hmm. je me rappelle que c'est récépissé voté. Ah bon il n'y avait même pas des cartes d'identité disponibles pour voter avec ton récépissé tu étais obligé nga internet bi dugg seen site dugal say identifiant ñu ne la tête bureau ngay voter. mais qu'en est-il des autres millions de sénégalais yi nga xamante ils n'ont pas la possibilité d'aller au niveau de l'Internet et pouvoir le site web nga demati 2019 mu ñëw indi ay ay ay parrainage man kii laay àndal kii mooy dem élection kii warul dem. donc mooy ñeneen ñi nga xamante opposition bi comme ñaar genre ñoom Malick Gakou ñoom Pape Diop. gars yi ñëpp ñu ngi ne wane wooyee. ñi ne dañuy. est-ce que trahi na leen mané ne ñun mënul am trahison xam nga dama am trahison ñom sen coalition peut-être ils peuvent se sentir trahis sen coalition ñu mu Il est 2019 ñun suñu coalition ñu nous tudd jot na. donc eux ils ont fait peut-être l'erreur de personnaliser leur coalition de idi 2019 motax tax idi bi mu demee lan wax il y a 20 qui s'ajoute aux 58 Donc, cent. mu mm-hmm. tënk ko boole mais c'est sax li wa PUR am ak li. Euh, quelqu'un qui am Madické ne ils représentent 85%, vingt cinq alors que il n'a pas de poids politique il est parti avec une coalition quadruple XL avec des anciens premiers ministres et Hadjibou Soumaré ay ay ay euh, Abdoul Mbaye avec des anciens maires de Dakar ay euh, Pape Diop et, ay Khalifa Sall et ñeneen ak ay Bougane Gueye Dany et malgré ça il a eu que 20% aujourd'hui Pasteur, ñi nga ñi doon wax ñëpp que de 1%. am parce qu'on s'est retrouvé avec 15% malgré tous les magos yi nga ne jot mm-hmm. donc tey nous on est un parti bu xamante ni on est on est très valeureux ma fàttali na Ousmane Sonko il a eu près de 30 000 voix en 2017 en l'espace de deux ans ces 30 000 voix là se sont transformées en plus de 600 000 voix donc tey évolution boobu noonu rek ngay gis élection bu euh, on va faire un bon qui va être plus que fulgurant donc moi, tax euh, bien sûr qu'on va répondre à l'appel de Macky bien sûr

xam nga da ngaa politique ah, Macky Sall mi créé APR c'est après 8 ans de carrière politique. oui de Abdoulaye Wade avec beaucoup de ténors. Mm-hmm. ñun on a on a créé Pastef du Noyat. en 2014. ñu jóg di soox ñu ñag nañ néew ñag nañ wét ci ci ci si politique mais fex yaa ngi doxal dëgg nit dañ la ci fek lan nga ci gis. bi Macky Sall jëlé Ousmane Sonko ne fay dàq def décret pour dàq loolu lu ko gën a ñaaw quelqu'un xam bi muy jàng fekkee woo bimi bimi bimi bimi di ay di am di politique war nañ dépassé dañuy utiliser des instruments de la république. Macky Sall Macky Sall question question yi Macky Sall Aminata mu au conseil des mais di Aminata Touré man Aminata Touré ji mu kon li may wax rek euh, le choix est libre gis nga Pastef euh, tëjalul buntam kenn amul kenn ku muy tëjal buntam Pastef c'est un parti bu nga xamante ne nii sénégalais yi ñoo ko moom et les sénégalais se sont l'approprié et Aminata Touré comme toute bonne euh, sénégalaise si elle voit que ne en Pastef voilà elle trouve euh, une idéologie qui pourrait développer le Sénégal mën na elle est la bienvenue. ah bon mais ñun lu ñuy wax. daal mooy parce que Aminata Touré. bon peut-être euh, li may gën la xalaat ndax moom euh, dina mën a am place au niveau de passe, mais quand li ma lay wax rek mooy que ñun on est ouvert à tout le monde. mais oui, puis question yu est-ce que Yakar nga ne 2024 Ousmane Sonko dana nekk président de la République est-ce que foog nga ne mën ko. bon yaakaaruma ko nag mais lu ma gëm la. da nga ko gëm. lu gëm ci yéen ci ci la ngeen ko teg yéen ba na jàpp ne 2024 Ousmane Sonko dinañ nekk. président fi ñu ko teg mooy un parcours discours. non amu parcours comme parcours. un parcours ngeen mettre en place affaire yi. 2014 6 ans yi nii amu leen amu leen yéen. mu leen wax daal li ngeen fi def def ngeen fi campagne euh, ma daal gisuma bi nga xamante ne mooy Sénégal ba tey man ñun fëgg dënd président Macky Sall. tey jii tey ñun. yaa ngi wax léegi débat chef de l'opposition mais mosoo dégg benn.

mais il a il n'a que des intérêts donc Taïdi, bon, dans États-Unis Donald Trump sa politique c'est quoi c'est America first la France sa politique c'est quoi c'est euh, la France d'abord nous sommes politique c'est quoi c'est la France d'abord Ousmane Sonko nous nous tax les français Mais comment on peut comprendre que nous sommes moins France Français ko garantir le alors que nous on est un pays souverain on a une économie qui bouge comment on peut comprendre que la France est une mainmise ñun si suñuy institution au point que nous considérons considérer président comme un gouverneur lan mooy expliquer que la France bu le président Sénégal Mali et G7 Sahel G8 Sahel ñoom ñëpp bàbbeeku dem foofu noonu. Hmm. loolu mooy ñàkk jox cër sa bopp nit da ngay am cër da ngay am da ngay am fulla si sa wàllu bopp nga xam ne tu représentes quelque chose de vraiment grandiose parce que tu représentes tout un peuple Et nous, Sénégal on va continuer à vivre normalement parce qu'on a l'expertise qu'il faut pour développer ce pays on a les ressources qu'il faut pour mener ce pays à bon port Moi, tax ñun amuñu benn sikki va ne en 2024 InshaAllah. Ousmane Sanko sera le président de la République. ah bon en 2024 Ousmane Sanko sera le président de la République du Sénégal Bon, yi ne ko dégg Ndorndor euh, euh, Pouy benn question bu dis. Il y a dafa mel na ngeen di daw débat ak à APR du leen nangul togo ñom Abdou mbaw ñom Marie Thérèse fay ñom Abdou karay Karim Fofana ñom yeen lépp yeen dal yeen yeen seen internet yi ngeen def seen révélation yi di alimenter débat mais nangu le débat wa affaire wa non loolu moom en fait dama koy corriger bu ngeen xolé le parti politique qui est le plus présent au niveau de la scène médiatique c'est Pastef. Pastef Pastef duñ ko mës a invité fan mu daw. ah parce que ñi fa nek tay ji lu ñuy wax yépp wala lu ñuy doxal ñëpp mooy dëgg la. Euh, nous arrêté en fait c'est le contraire même parce que vous c'est les gars de l'APR les gars de maintenant qui commencent à déserter les plateaux parce que euh, quelque chose à proposer à la population da ngay da bureau vous avez sa peut-être mais et pourtant il y a deux ans trois ans mais parce qu'ils ont un bilan indéfendable man ñu pas défendre parce que liggéeyuñu après 8 ans on a on se retrouve avec un un un, un taux de euh, croissance de 0,7%. pour mm. mm. en fait il y' a beaucoup de problèmes au niveau du Sénégal bon au niveau du port même là le port lañ ko en concession il y' a Dakar Terminal euh, les Français qui sont là-bas il y' a Dubaï euh, qui est Dubaï Port qui est là-bas. Mm. ah y' a Necotrans qui est là-bas. même au niveau des banques y a la DGIS qui est là en fait ñun suñu économie français yi dañ koo dañ koo dañ ko accaparer te ñun loolu la ñuy xeex ñun on est contre aucun pays mais li ñu gëm tey jii mooy bu ñu nekkee ci dëkk ay richesse am fii la population doit en bénéficier y a une expertise qui est là la population doit en bénéficier te tey euh, li ñu war a gën a éviter mooy te lii am actuellement mooy que un état qui passe tout son temps à faire des dépenses de prestige. Des dépenses de prestige. Les dépenses de prestige, moi, la, moi terre, on l'a inauguré il y a deux ans. Ça a bientôt fait deux ans qu'on a inauguré la terre. Un président sérieux qui inaugure une chose pour ramener deux ans après. Il y a des questions à se poser. Machallah. Voilà. Ah, Donc, qu'il yi lii leen leen indi doon fi nga a ni moom mooy Sam TV euh, Pouy lan mooy sa kàddu gu mujj bala may tëj émission bi. bon sama kàddu gu mujj maa koy jëmale surtout si population sénégalaise bi di leen ou si conditions difficiles li nga xamante ni moom la ñu nekk di dund di tamit gën a ñaax samay mbokki jeune tamit parce que c'est vraiment difficile parce que tey peut-être métti nga nekk si situation yu xamante ne ni nga bëgg defal sa waajur mënoo ko defal nga am mbokk bu feebar mënoo ko faj loolu mooy tax jeunes yi di def di dem di braver la mer pour peut-être un avenir meilleur ñu leen di ñaaxaat ne tey ji Sénégal ñun am nañ fi ay ressources am nañ fi tey ji ay kàngam yu xamante ne mën nañ jëmale dëkk bi kanam donc mbay maa ngi fi napp baa ngi fi bien vrai tey ji gouvernement mu ngi jaay suñu géej sax mais nañu xeex fii nii ba def de telle sort que faire dix ans vingt ans tubaab bi ñoom ñooy daw di ñëw fii nii mais pas ñun ñuy daw di dem seeni dëkk loolu tey seen une chose bu xamante ni mën nañ ko moo tax sama mbokki jeune maa ngi leen di ñaaxaat ñu gën a dellu si seen xel euh, gën a gën a gën a gën a jàpp si Euh, un leader comme Ousmane Sonko ñu ànd liggéey Sénégal de telle sorte que ñoom seen bëbët yëpp mën a mën a mën a mën a faju si diir bu gàtt. jërëjëf euh, ñu ñu tamit euh, ziar di remercier waa tout toute toute l'équipe de SAM. Mm. di wax ne tamit c'est un réel plaisir d'être là. Euh, voilà di leen ñaanal tamit euh, yàlla gën a yokk xewal yi. yàlla aar leen tamit voilà. Euh, jëmale jëmale kër gi si si si Sénégal ñu di ñu ngi leen dig dañuy ñëw. abonné leen le plus service commercial baa ngi nu yi soo leen rek ngeen dal di ci numéro yi ngeen gis ci écran bi di leen di wax ne mbokki sénégalais googu voilà Ousmane Sonko. Euh, ci 2014 ak jaar-jaare fu def def ndawam mi nga xamante ñi ngi tax ci terrain partout ñi discipline yaru euh, am argument yoo xamante dañ koy waxtaanee ci tegge ak yar euh, ak ci bépp parti loolu lu lañ bëgg na jeunesse bi ñu yeewu ñu comprendre fa nga xamante ni moom mooy pour ñu comprendre mieux comprendre suñu Sénégal bi Sénégal bi ñoo ko bokk ñi bañ ba tax ñi Sénégal Action Média lay tudd ñi ngi ñëw fa nekk fenn fu nekk ñi xaar leen ci Sam TV Sam FM ak mbokk yi li leen indiwoon fi nga xamante mooy Sam TV la prochaine da ngeen xoolaat émission bi chaque samedi à partir de 21h incha allah en exclusivité fi nga xam ne merci beaucoup jërë ngeen jëf la prochaine.